jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di kontaan encore une fois di euh, ànd ak yéen Mamadou Ndoye Bane Mamadou Mohamed Ndiaye équipe technique bi euh, Maysa Mbaye euh, Aliou Ba maa ngi lay kontaane waaye passe partout maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax auditeur ak internet euh, ñu ngi leen di jaajëfal baan maa ngi caar jaajëf ñu ngi lay ziar bu baax di ziar Ndiaye Aliou Ba ziaruma ko ndax heure bu ñu tardé rek moom moo ñu tardé heure bu ñu dagget moo ñu dagg yàlla yàlla moom bu fi toogee moom su toogee moom day saboté c'est ça day ak yi bëgg ñëw day saboté xar amagul day saboté gën a saboté day saboté dëgg la day saboté mais on va voir ça ñu ngi ñu ngi ziar bu baax yàlla ñàpp yàlla ñëpp am jàmm ko bëgg jàmm yàlla nga yàlla may jàmm soo bëggul jàmm it yàlla na la yàlla may jàmm def dara ci poos yi comme ñi ko Njaay waxee nit ñi tabaski ci jàmm corona gi jóg fi su ko defee nit ñi mën a bëggee jaa ngeen jëf en tout cas xaw yéen pël yi la xaw ma yéen séeréer yi la mais dama bind plainte euh, yóbbu contre x ndax journaliste yi ñun bambara yi leen ko jiiñ xar yi jaar ci euh, péage bi loolu moom faaw mu leer ñu xam ñan la ah, foog mu leer foog leer parce que ay wax yu ñaaw dafa war a jug ci réew mi man bind naa plainte contre x ñu xool kan la daal xarit ci péage bi xarit ci péage bi ah, yi laa du ñoom séeréer yi entre séeréer yi ak pël yi keroog dañ maa dañ maa won benn vidéo hmm. suñu xarit bi Pawlish hmm. mu ne dootu waxatu lu ko wóorul diffamation la <laughs> mais lii nga fi def yépp diffamation la. yéeme na de. mais nettali nañ la bañ ko convoqué gendarmerie. Mm. mosu la ko wax. mosu ko dégg boo gisee laaj ko nu convocation ba tamit. dootul dootul tooñ. dootul tooñ. dégg ma ko fenn de. looy jooy. <laughs> <laughs> waa rek wax maa ngi lay nuyu bu baax Aba maa ngi lay jaar bu baax maa ngi maa ngi nuyu waa Sénégal mhm. ah loolu nag jar naa leeral gis naa gis naa photo yi ay xar yuy dox ci autoroute à péage mhm. xaw ma ña leen ca ña ko def luñ ci jublu mhm. ak lu leen ci dugal léeg-léeg nag situation day day day day waral yenn yi loo xamul moom mënoo ci sori waaye image ba mu rafetul jël xara ya ramasse yóbbu rek image yi moom rafetul xaw ma lu ko waral ak lu tax ñu def ko nga soo ci félee benn nga problème war nañoo organiser war réew mi beneen bi si topp mooy ñoom bu ñuy xam naa moto xam naa camion xam mais xar ñaata lay fay. sekk yooyu xar la <laughs> yooyu sekk yooyu kenn du jënd ndax dina seer bu dee dañ cee fayeeku péage beeg yooyu yëpp. c'est te te en tout cas war nañu organiser waat réew mi daal. war nañ ko organiser ku ne xam fa nga war a jaar ku ne boo demee ñàkk nañoo xam sax. Mm. ni fii ñoom war ñu fi jaar fekk ramasse xar yëpp wóorul sax foofu danger la ci moom aji maa ngi nuyu sama maa ngi delloo ziar yaa ngi nuyu ñu ngi gërëm eh, gars yi nga xamante ne ji bi ñu nee dañoo soxla ay yére waaw pour eh, jàppale ko waajur yi war a jëlee seen doom seen i doom te amuñu ko waaw ak donc da taalibe yi nga xamante ne ji dañoo yitteewu ay yére ñoo ngi réagir waaye mm-hmm. Mm-hmm. en tout cas nañ leen xamal da fii ba altine mm-hmm. noonu lu ñu lu ñu am ci ay yére rek waaw eh, ak ñi koy fi indi ay ñi ko fi ñuy joxe te bëgg ñu tudd ñu tudd seen tur yi tamit voilà waaw loolu sax maa ngi jot benn yére boo xamante ne ji kii moom jigéen la ko ñawal ah. ami Bamba Couture Gueule Tapée ah. ah. eh, di ñaw yëre pour jigéen ak pour xale moo ñu jox bii nii eh, damay bañ 78 144 31 31. ñaa ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. Mhm. ak ñeneen ah. Mhm. Mhm. Passepartout jàppale ma ci association des am na ñu nekk ba bitim réew it di yëglu. loolu baax na. macha allah Ndiaye. Ban. maa ngi nuyu Nene Bodian sama tante la mi maa ngi ko gis léegi ci ci Facebook bi Nene Bodian. am na waaw nuyu sa tante soo la neexee. ah non mais ban ñun kenn toogu fi pour ay nuyu. Ah, waaw man sama tante laay nuyu man. Ah, waaw mais nuyu sa tante nuyu sa tante rek jàll mais ba mu neex. Ah, ay tante yooyu ñu fi teg. soo mënul ngeen dàq ma. ba waaw <laughs> bëgg ngaa bàyyi nag <laughs> ndax xam nga ni. nombal tànk yi ngay bëgg am. bis man de yéenewu ma la nga am nombal tànk yooyu. ndax li nga wax ni boo ko amee moom ngay def te xam naa ne waa Sénégal buñ ko xamee kenn du la ko yéene. nombre tànk yi may bëgg am bu ma ko amee bàyyi. ah waaye yow tamit ban mi. day kenn ci bàyyi xalaas gi. bàyyi xalaas gi nga wax. waaw ah. Ndiaye. ban gis naa ci école yi loo xam ne wax maa ngi la koy wax léegi. école tëj na xale yi nekk ca école am na ci école du école yëpp am na ci école yu bari yoo xam ne fii dakaar la ak dans les région école tëj xale yi jël seen i blouse di ko xotti di ko di ko di ko di di ko ñii di ko taal ñii kii jël jël seen i kaye yi nga xam ne moom leen doon jàngee ci année bi di ko taal di xotti di ko def maanaam di ko di ko jëri ci école bi di gën a tilimal école bi am na ci école boo xam ne sax jàngalkat yi dañoo mujj daw génn école ba bàyyi leen ak ñoo bàyyi bàyyi leen ak école ba image yaa ngi nii lu tax ndax école bi tëj benn muy nit di relation di métier ak lu mu mën a doon. Uh-huh. ni nga ko def rek. noonu la lay def. Uh-huh. waaw waaw. loolu boo taalee am jàng loo fullaal mu fullaal la loo fullaalul du la fullaal. loo fullaal effectivement parce que wax dëgg yàlla li nga doon li nga jàngee ren danga nga koy jël yóbbu ko sa kër. soo kaa soo toogee quelqu'un nga ubbi waat table yi jël blouse yi lakk ko jël. jël banc baa ngi yi tasaare. jël blouse yi nga xam ni. xaalis la loolu moom mosu fi am moom. man xam ne gox façon gone yi bees yi nit ci dëkk bi man jaaxal ma man. <laughs> man eh, man luy xalaas bi wax la. <laughs> na façon de si xaw ma ndax nit ñi seetlu nañ loolu am na ay gone yu bees ay xale yu bees daal yu yu xew yoo xam ne vraiment li nekk ci dëkk bi. billaahi wallaahi ku ci waxul. ah baax na nen dem rek. man yàgg naa leen alerté ne leen leen dem rek. mais problème fondamental bi mooy parents yi ñoo màggeetul seeni doom lu bari. ah baax na rek. ba pare xoolatuñu xale yi. ci kanam ak ci ginnaaw. Ah, ah. façon xeetu gone yi ma gis. tey ku ci gis sa doom tey ku ci gis tey sa doom école tëj mu taal kaye yi jël table bàyyi di ko damm ak yooyu teel koo génn ci école bi xam ne lii du avenir am. Ah. buggul loolu kooku lu mu bëgg nit loo bañ rek nga yàq. njaay bugg ko. <laughs> Derkele Ndiaye. kuy taal primaire ba dem université du mat a wax. waaw ah. jeex na ña ngay entraînement pour su ñu yeggee fële. <laughs> lii yëpp ay ay échauffement la. Ah, ah. <laughs> la xew Derkele ngeen. la fa xew démb junj nañ ko. Mhm. mooy famille boobu famille jàllo bi. mbir mi yëpp xumb na xumb goo xam ni su ci kilifa yi jugul Ndiaye dina ëpp loxo am na ci ñoo xam sax Derkele ñoo xam ne dañuy marché tey pour affaire boobu noonu maanaam la xewoon waagu ñaay. moo fa nar a xewaat. yan kilifa ñoo ciy jóg. ah xaw ma bon am na affaire bi daal xam naan ñi ngi yéeg ci kaw daal ñi ngi dem ñi ngi naan ñoo ngi wax ak kilifaay ak ñoom seen mais wax ju dëgër lu dëgër amugu fa parce que waa ji ci boppam ñëw na fi Alassane jàll mi nga xam ne mooy taawu paa bi mhm. ñëw na fi ma woo naa ko mu ñëw fi pour ma jël version lii la wax ñëpp ay doomu Amadou Diallo lañ man man maa yoroon société paa bi depuis presque une quarantaine d'années ñoom ñoom njëkk indil plainte sam papa bi mu gaañoo ba mu am euh, deux mois ci lañ ma indi plainte tribunal. waa sampa bi mu gaañoo. dafa bàyyi woon bor ci ñaari banque léegi nag islaam pour nga miraas il faut nga fay bor yi man maa jëloon engagement di fay bor euh, huilier beneen bor bi am na ñu ci dugaloon beneen bi ñu am na ñu si jaay ba fay CBAO. mais du sa xaalisu bopp nga doon fayee. non non si xaalisu location lañ ko doon lañ ko doon lañ ko doon fayee. bi ñuy versé ba huilier jeex. notaire bi récupérer leve bi notaire du man maay récupérer mainlevée mainlevée diggante banque la ak tribunal man xamu sax leve nu mel. bor ba jeex. waaw bor ba bor bi jeex na. da ngeen a jaay benn terrain pour fay ko. waaw boobu boobu dañ dañ dañu jaay terrain fay boobu ba mu jeex tàkk. kër gi nekk ñoom ni bi ñu dëkk ni mhm. te ñoom dëkk nañ fa. def boobu léegi kenn si ñoom mosul fay luwaas. te tribunal indi la leen kayit ne leen nañu fay luwaas ñoom ci seen wax nee nañu. chaque mois maa ngi jot deux millions dañu boole ñaari kër ñoom kër gi ñu dëkk ak beneen kër gi ñoom lañ moom lañ boole ñu ne man maa koy récupéré te pourtant ñoom ñoom fi ñu dëkk kenn si ñoom musul joxe mille francs. Ah, mais beneen ku koy récupéré beneen kër gi. boobu man maa koy récupéré. Hmm. waaw boo récupéré xaalis yooyu foo koy foo koy dugal. ci laa doon dugal UBA. Euh, waaw UBA laa ko doon dugal ci laa doon fay euh, frais. am na ñu si ñoo xam ne aussi sama papa daf leen yoraloon xaalis ñu bëri sax am na ñu bëri liste baa ngi nii ñoo xam ne sama papa daf leen yoraloon xaalis. waaw ñooñu aussi ñëpp maa ngi leen di remboursé instant bi nii nii ñaar nit kese lañ desal. Uh-huh. waaw uh-huh. kenn ki deux cent cinquante mille kenn ki trois cent et quelques mille. mais ñoom dañoo toogoon waxtaan ak yow. Mm-hmm. def procuration bu jour boobu nee nañ sax jooy nga fa jooy metti ndax confiance bi nu la jox. ndax ndax ñoom dañu laa jiital yow parce que yaay seen mag. non non waaw. waaw non lool lool lool lool amul. ñoom mosuñu ma nangu jiital. man maa jël volontaire dem nañ gendarmerie deux fois. gendarmerie fois dem nañ fa deux jëppal man maa jël volontaire ne ko man maay taaw il faut ñu fay booru bi parce que ñoom dañu bëggoon ñu leen di defal seeni i di leen fay seen étude man leen loolu mënul nekk parce que liggéey bi attanu ko ci lañ ma jël ñu tëj sama entreprise ñu tëj entreprise bi jëlee ma fa su ma jëlul woon volontaire takk sama tànk xar sama tànk tubéy kon heure bi banque jaay na kër gu yàgg yàgg yàgg bi ma demee ba ne bor <coughs> bor bi des na dix millions et quelques xam nga yow affaire agio banque wa nga xam agio yooyu mm-hmm. waaw ñu may ma deux semaine ñu ne su ma fay loolu dañuy jaay kër gi mm-hmm. ni ma def nag ba fay loolu ñoom xamuñu ko. Mm-hmm. noo def ba fay ko. non si location ak yeneen ak yeneen. waaw léegi lan moo xew ba ñoom ñu xëy suba rek ñu ni leen dañ leen di génne le vingt au moins le vingt dañuy jaay kër gi vente vente aux gens. ñoom dañu jàpp ni man sama bopp man maay jaay kër gi te te demeewul noonu man mun ma jaay kër. que notaire moo koy jaay ñoom dañu defoon benn procuration ci maître Binta Thiam procuration baa ngi ni indaale naa ko léegi bi ñu defee procuration ñu ne ñoom ñooy famille bi man ñi ma bokkal ndey baay boolewul leen ci. am na ñu ci waaye am na ñu ci bokk am na ñoo bokkal ndey baay ñu ànd ak ñoom. ñaar lañu kenn kaa ngi Italie kenn kaa ngi fi mhm. mais ñi sama sœur ak sama yeneen ñaari frère yi nag Italie boolewul leen ci man kenn boolewu ma ci. ñu def procuration bi ñu jox locataire ñu ne ñoom ñooy famille bi bu kenn joxati Alassane Diallo xaalis ma jël avocat ma jël maître Amadou Camara ñoom ñu jël maître Bamba Cissé ñu dem tribunal <coughs> ma déposé ma woo sama famille man leen léegi ñu déposé vente pour pour jaay immobilier comme ça ñu noppale ko. pour jaay lan. pour jaay kër yi ñu seddoo ku nekk. ñoom kër gi ñu dëkk ñoom. non non ñaar yëpp comme problème dafa am soit ñu jaay bee wala ñu jaay bale wala ñu jaay ñaar yëpp. ma dem si sama avocat wax ko pour na ma dugalal euh, procédure de vente. Hmm. avocat dugal procédure de vente ne ñu ñu ñëw. non pour euh, jaay kër gi pour ñu jaay kër gi. yow yaa ko proposé. waaw man maa ko proposé pour ñu jaay kër gi. man ak ñi ma bo mag ñi ma ñi ma àndal. ak ñi nga bokkal ñi nga ñi nga àndal ñaata lañu. ñoo ñun six lañu. six lañu. waaw ñetti góor ak euh, ñetti jigéen. voilà sa papa ñaata doom la sam papa macha allah 27. 27 waaw ñeenti ñeenti famille la. Ah, kon kon kon yow ñi nga ànd ak yéen kon yow sa yow sa camp ay yeneen minorité bi yen amu leen ñee ñoo leen ëpp. waaw bu fekkee dañu def coalition. lépp la waay de. gis gis nga daa mujjee waay lépp. gis nga mm-hmm. lii yuusu waay. Mm. moo ne ci biir kër yi. di nga dégg ma naan la kër yi dafa xumb. Mm-hmm. bokk ndey ak bàyyi léegi xaw ma ndax amati na njariñ. Mm-hmm. bokk bàyyi ak léegi xaw ma ndax amati na njariñ. paa bi 27 doom la am. six personne ñoo ànd ak taaw bi ñette des ñoo ànd même taaw bi am na ay ñum bokkal ndey ak baay ñoo xam ne ànduñoo moom ci li muy def ndax moo tooñ wala tooñul te rax ci doole gis nga dëkk bi ku demati tribunal tribunal ak yooyu abokaa yi nag moom maa ngi leen di ñu ñi nga xam ne avocat yi ñu ngi def seen liggéey normalement mais am na ci avocat yoo xam ni dañuy maanaam njaay am avocat ma am avocat avocat njaay ak sama avocat def coalition di di di ñu di di ñu ruube ñun ñaar xamu ndax kombarang ba yooyu dafay am avocat Ndiaye ak sa sama avocat ñooy gis fee di naanandooy café waaye ñaar ñee ñee eh, toog ree ñoo xool nu ñuy re reyee kenn ban sànq bi ñuy soog a ubbi da mel ni da nga am sa benn membre famille boo gis ci live bi daal koy nuyu nee man gisuma membre famille de mais sama taw papa waaw ah. ngi koy nuyu bi sama papa di dund la nekk suñu papa xoolal ma loolu ni foo dafa teel nekk suñu papa mais looloo looloo looloo yombul nag mhm. taaw su suñ la séddalaloo neew ma nag kii moo waxuma kaa bi mais taaw daal suñ la séddalaloo mm-hmm. mm-hmm. séddaleel ñëpp te ñàkk loolu la as gor di def man bu doon may moom sax damay mujjee jël lépp ba leen ko wala ma àtte leen séddale leen ko gérer leen te xam ni maay seen te moom am na kër du ma xëccoog ñoom mm-hmm. déglu la mu wax acca démb waa démb ñi fi ñëw ëpp nañu siis ñi fi ñëw waa ñoom ñëpp ñoom baay baay la ñu bokk. Ah. ñoom ñi fi ñëw ñoom ñëpp ñoo bokk baay. yow six personnes nga ci àndal sur vingt sept. mais côté côté diine. Mm-hmm. diine amul majorité. tey tey benn man kese kese kese kese su ma su fekkente ne déggoowuñu mm-hmm. man kese su ma nee dañu jaay dañu jaay. waaw d'accord mais yow. mais yow waaw mais ba léegi waxoo waxu l'islam waxu ah. tribunal nga wax. da nga ni da nga dem tribunal pour ñu jaay. pour ñu jaay waaw demoo jumaa je wax ni pour ñu jaay. suñ demoon jumaa je pour ñu jaay. su boobaa daneen wax góor ak jigéen ak ñoom seen. Mhm. mais ginnaaw danga dem tribunal pour ñu jaay. est-ce que tey jii. Mhm. yoon may na la. Mhm. pour nga ànd ak sa six personnes yooyu jaay parce que. ñi àndul ak yow ñoo ëpp ñi nga àndal. waaw bu fekkoon loolu la koy kon tribunal du àtte. est-ce que est-ce que loolu tamit yoon la parce que alal joo xam ne ay nit a ko bokk. lu mat vingt cinq personnes wala vingt sept personnes a ko bokk. jaay loo xam ne. vingt sept ko bokk. Mhm. jaar na yoon di sama gis-gis moom di sama gis-gis jaar na yoon waa sama gis-gis parce que tribunal bi àtte. tribunal bi àtte ñoom ñoo xam nu ñu àtte. àtte est que ñoom woo nañ leen. ñun wa ku si nekk sa ku nekk am nga avocat. parce que tey bu ñu waxee ni yëguñu jaay bi. dañuy wax lu leen neex parce que suñu yëguloon Ndiaye duñu jël maître Bamba Cissé bi ñu gañee maître Bamba Cissé ñu dellu jëlaat maître Ndoumbé woon. yaa ngi mesurer yow en tant que taaw. waaw toroxal mën bon est-ce que mën naa ko tuddee toroxal bi nga xam ne. say sœur ak say nan nañ ko dund ci ci ci ci biir Derklé. Euh, ak ak ak ci biir Sénégal. xam nga ñu ni seen mag bu góor moo leen ko teg. xam nga toroxal bi ngay wax ni o contre ñoom ñoom ma toroxal parce que ñoom ñoo ma génne si bureau bi génne samay sœur. sama ñaan sœur yi ma bokkal ndey ak baay foofu la ñoo seen appartement ñu génne leen mhm. occupé appartement bi. Njaay. Mhm. Hmm. waa dëkk waa quartier bu ñu bari ànd nañu ak famille bi. nii nañuy marche. comme moom nee naa ko tamit est-ce que sa conscience may na la sa sœur yi ak sa frère yi nekk ci biir kër amuñu fu ñu dëkk yow nga am kër sa conscience may na la ngay ànd nga ne justice ko wax ngay ànd ak ñoom ñuy leen di génne ñuy tasaaroo ak seenu njaboot noonu ànd te sa baay baay la fi ngay taw est que sa conscience may na la loolu. en tout cas daal ñee ànd ñoom ay sœurs yi nañ bañ a wu ci kawam. Uh-huh. moom it tamit na wane grandeur. Uh-huh. te ñu toog ci waxtaan ci benn tour table. Uh-huh. xam ni la ñuy xëccoo noonu. du ñoom ñoo ko fa teg. te ki dem. moom ko dem bàyyi ko fa ñoom tamit nañu xam ne bis day ñëw ñu dem ñoom ñëpp daal ko fi bàyyi. nan waxtaan daal àdduna am solo te ko woon. àdduna mm-hmm. mm-hmm. am mooy coow lu mu rëy rëy waxtaan a koy lijjanti. alalu bàyyi du alal. nit ñi leen jéem wuti seen alali bopp. alal présidence.